mbokku internet SeneNews TV tey nag euh, ñi ngi fi nga xam ne moom mooy euh, géejawaay géejawaay dañu ñëwoon rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, famille famille accidenté yi nga xam ne moo moo amoon fële ci Louga ni ngi taxaw kenn ki nga xam ne mbokkam bokk na ci li nga xam ne moom mooy tiis bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy jooy ba tey sëñ bi tur bi ak sant bi. salaamaaleykum man maa ngi tudd Ousmane gay ñi may woowee Ndiankou Gaye man euh, nga yéen ndax mën nañu indil témoignage par rapport ak ki nga xam ne euh, sa mbokk bu des ci accident bi nga xam ne moom moo amoon fay ci Louga. waaw euh, sama mag bi mi ngi tudd Mariama Gaye ñu koy woowee May Gaye fii ci Thiaroye Minam yaa ngi wax Guédiawaye mais fii en réalité caa ci ci commune de Thiaroye la bokk moom fii la juddoo fii la yaroo mais Tivaouane Peulh la sanc waaw moom mi ngi tudd May Gaye moom mooy sunu taawu jigéen man maag moom ñoo bokk ndey ak baay. waaw moom nag dafa di mag boo xamante ni luñ la mën a wax lu dul euh, nitu diine la gëm yàlla la euh, euh, mënoo weesu foofu baax na julite na te surtout ku jokk mbokk la ci mission boobu la nekkoon ba lii fekk ko ci waaw moom daal li nga boo mënee résumé ci ci may moom daal c'était c'était la grande royale de la famille. mooy borom kër Mariam Gaye Mariam Gaye euh, sama jabaru xarit la woon sama xarit moo ko dencoon bu mu am taaw bu góor mu tudde tudde ma ko yàlla dogal sama xarit bi gaañu ñu jox ma ko euh, sey woon ak sama xarit bi vingt ans man ma jëlaat ko léegi am nañu dix-huit ans xam naa ne ko jabar ku baax la lu jëkk bi mooy dafa jullit jullit xagante yàlla moo tax ma wax ko du dee wax naa ko avant loolu te gërëm naa ko avant avant bi xale yi amee BFM woo naa magam bu góor rakkam bu góor ki topp si moom ma ne ko xale yi nañu góor góorlu pour ñu jàng dañuy nangulu jàng parce que moo takk sama doom bi dem deuxième tour bu gënoon góor góorlu tuuti mu dem parce que yaay seen yaay ku baax la yàlla xam na ne bi keroog bi deuxième tour bi génnee laa ko wax BFM yàlla boobu xalaatuma de lii dana ñëw waaye yàlla euh, xam naa ne euh, ku baax la. nan nga yéegee décès yéegee bi décès sama xarit bu nekk fuuta mu tudd Thierno Mountaga Gaye imam imam jumaa ci Fatick la mu ngi Fouta actuellement dafa demoon fa vacances mu woo ma mu ne ma salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama ker cité sant nag mu ne ah aha ah. ma ne ko waaw mu eh, xaw a kii tuuti ma ne ko lan la lu xew mu ne ah xanaa yëguloo lu xew ma ne non non yëguma lu xew mu ne ah mu xaw a kii ma ne waxuma ko rek. waxuma ko rek xaw lu mënta xew rek waxuma ko rek comme que xew na ko rek mu ne oto bi am sok ma ne dafa am soog mu ne ma waaw ma ne ko euh, mu ne ma amuñu si lu leer nag oto bi dafa am soog te amuñu si lu leer ma ne ko ma ma ma ma coupé ma woote ma woo sama jabar bi bu ma ko wooyee portable bi di sonné kenn jëlu ma woo sama doom bi doom taawam bi sama turando ma woo ko mu ne ma maa ngi nii dem kër papam su sama kër maam. Euh, nee nañu dafa dafa dafa dem euh, dafa nekk réanimation mu ne ah, réanimation kay baaxul kon maa ngi ñëw ma ñëw ñu buñ ñëwee ba fii ñu toog di seet euh, solution pour dem Louga après xale yi daje ñu ne ma yow bul dem yow bul dem danga ngaa da ngaa wérati xale yi dem bu xaw a départ tuuti. kii nga doon waxal léegi Ousmane gay yuuxu. ñu ne may dee na. man personnellement dama tëdd sama grand frère woo ma na ma problème am na ma ne ko lu xew mu na ma ñoom may dañoo def choc moom nag sama nijaay bi nekkoon ci oto bi moo ko moo ko woo parce que ci oto bi sunu ñaari nijaay ñu ci woon ak sunu benn yumpaañ ak may moomu ak turandoowam bi mu doon indaale vacances. parce que turandoo bi aussi euh, lu ci xawali mooy dañ ko mu demee dañ ko ko koo may xale bi dañ ko ko may fu mu ñëw nekk ak moom. bon xale bi incha euh, macha allah ñëw na mi ngi fi mi ngi ak ñun dafa blessé nak mais aussi elle est un peu traumatisée dëgg yàlla elle est un peu traumatisée bon ay 8 ans ay 8 ans la am donc elle est elle est trop traumatisée xam nga xalé aussi tim ci lu mel non aussi day xaw day xaw metti day xaw metti mais sante yàlla sante yàlla bu baax parce que yalla mo dogal yépp yalla mo dogal yépp parce que aussi nit mom lu yalla dogal ci yow sa ab bu joté rek lay dem ñoom ñaar ñoo togon léegi bi accident bi amé sama tonton bobu ñuy wax Séga Ndiaye ndëk ñaari tali mom mo débrouillé ba génn mom mo génné bopam mom nak mom mo famille bi waaw mom mo wo nañu sok amna biñ ko la may dal xamna ni may man ak euh, indi hôpital xam nga man ko après ko ko man ko may ci ban état mu ah, dama lay wax rek est inconsciente mais Bob quand même gaañoogul woon voilà mais après on avait des ñu parce que nous avons une bonne mu ñu am information mais hum, de liaison à liaison avec relation yi ñu am euh, ci hôpital finalement la ñu am confirmation que nous avons ko. Euh, Mamadou Abdoul Gay, Mamadou Abdoul Gay, man maay taawam. waaw voilà sama papa bu aussi pour comme li mu wax sànq rek. Euh, sama papa gagne depuis 2003. 20 ans bi si 20 ans depuis Bob aussi. moom moo nekk ci kër gi nekk ak ñun dëgg yàlla nekk ñu nekk rafet ëmb famille bi yëpp nekk ñun dëgg yàlla aussi ñoom moom tamit dañ koy gërëm. man bu may man bu may yeewoo parce que man sama nijaay benn sama benn nijaay moom moo woo téléphone mu ne ma foo nekk man maa ngi kër ga mu ne ma ah sa yaay di dafa def choc mais nag choc bi dafa métti mhm. mais jéemal gérer information bi parce que man ak xale yi ñoo fa nekkoon parce que bu kër ga. sama yaay moo fa nekk man ak sama jabar ak sama ñaari doom ak samay rakk moo fa nekk mu ne ma géral information bi bon lu yàlla def sama rakk bu jigéen bi xam nga jigéen dafa jege yaay mu ëpp mu ñëw fëgg ma mu ne ma yow yow sama yaay maa ngi koy woo dem ba léegi mënu ma ko jot lan la ma ne ko dara xewul mu ne am na xew parce que maa woote naa fuut na ko ma ñu li xaw wax xaw ma ne ko sama yaay sànq woo naa ko sànq

voilà ba vidéo bi mu vidéo def sax envoyé nako xalé yi quoi. ngeen néew bi. Ah, waaw jot nañu ko alhamdulilah néew bi jot ko amul jafé jafé balaa ñuy dem sax am ñuy ñu né nañu ko ci hôpital bi yobu nañu ko ci ñu mbokk bu suñu euh, euh, terminal bi ak euh, commandant brigade bi waaw après ak suñu amna hôpital bi Eh, kooku toppatoo ko doomi doomi bàjjenam la doomi ay doomi ndey la ay doomi bàjjet ci moom ñoom ñaari seen ñaari baay ak seen ñaar kooku yaayam ak papam eh, ay doomi ay ay mag ak rak la ak yaayam tam ak ay mag ak rak kooku taxaw ko bu ñu demee parce que bu ñu ko nee eh, mu ngi réanimation kooku ne dem na nee na gisu ko nee na gisu ko après ñu woor wóor bu yàgg après ñu ne ñu ne moom de bu xamee ne dee na nag après ñoom ñu toppatoo euh, ba xale bu ñu dañuy ñëw rek wax dëgg yàlla jël koor bi balaa ñuy dem yëpp yemba na. te aussi yàlla dafa dogal ne suñu kër xale yëpp ñu ngi koy fréquenté doo ràññee kan mooy doomam ak kudul doomam dëgg yàlla te dafa nekkoon ni koo xam ne aussi foo ko mbënti gis mi nga kurusam parce que dëgg yàlla jullit akkan la woon te taalibe Cheikh dëgg dëgg dëgg la woon. mu nekk wërsëg boo aussi dafa bëgg bëri woon jàmm ci nit ñi man sax da boo gisee da ngay yaakaar ni ay frère lañ wala frère ak sœur lañ parce que dañuy tooñante parce que daf am loo xam aussi damay fekk di ko affaire yooyu yëpp dinañu trop. sunu kër gi fii ci biir kër gi doom bàyyi dañu mais leader famille bi jigéen la mais leader famille bi moom moo doon ñun lu soxla rek. ci moom la ñuy dem waaw bi suñu yaay di dund sax boo demee ci moom dana la demal ci may. démb bu ngi fi ñëwoon ci levée du corps bi rek la xam ne di ngeen ko gis fees del del te ñëpp benn kàddu la jullit la te ko mën jokk mbokk la. waaw paa bi tabaarkalla paa bi tey il est âgé de quatre-vingt-six ans bon mi ngi mi ngi góor nag parce que paa bi tamit wax dëgg yàlla dafa dafa di moom it leader la dafa di ku gëm yàlla.